yaa ngi jël nationalisme du ko caricaturer pourquoi simplement parce que y une dame qui s'appelle Marine Le Pen en France ou y a une famille qui s'appelle Marine Le Pen en France qui insulte les musulmans qui insulte les étrangers yaa nga ma seetaan da nga ma mës a gis may insulter étranger da nga ma mës a gis may insulter benn religion. alors may ma rek xam nga lan moo tax sa bon boo national bu sénégalais yi waxaan nationalisme du ma inquiété mais ton nationalisme la il m'inquiète su demee sur les vingt quatre pièces de ton programme. numéro 2 vous parlez de réforme migratoire pour sécurité emploi et épargne nationale pas mal alors vous dites recensement des étrangers identification des étrangers carte de séjour pour tout étranger CEDEAO hors CEDEAO sauf pour les ressortissants gambiens prioriser la nationalité sénégalaise dans tous les secteurs d'emploi Ce qui est grave, c'est ce qu'on reproche aux Français aujourd'hui, dans tous les secteurs d'emploi formels, informels, imposer un ratio de Sénégalais dominant dans les entreprises nationales et étrangères. Imposer une politique de domiciliation des étrangers, c'est normal, un pays organisé doit le faire. À titre, à titre d'hygiène, à taxe de titre de séjour, court, moyen et long terme, au-delà de jours, pour tout étranger, permission de travail pour les étrangers, pas accès à la gratuité des services publics pour les étrangers. Moi, je crois revisiter le programme de Zemmour ou de Marine Le Pen. on est où? Mës nga ko lire? Oui. programme Zemmour ak Marine Le Pen. ma ne je crois revisiter. ah kon mës nga ko lire c'est bien. de Zemmour ou de Marine Le Pen on est dans on est où tey xam nga da nga def référence à la France nañ toog ci France. Ah. pour ne pas sortir du sujet France amul carte de séjour. répondre ma s'il te plaît. France am na carte de séjour wala amul carte de séjour. si. am na carte de séjour. si am na autorisation permis de travail effectivement da ngay fay impôt. étranger dañu am maanaam benn politique départ national boo xam ne dañuy cotiser pour économie française c' est ce que je veux te pourtant li nga may méngale ak Marine Le Pen Marine Le Pen loolu mi da ko fekk France. li may wax nii c'est déjà dans les pays et je parle même pas de la France mais en Afrique moo am Gabon moo am Cameroun moo am Centrafrique dëkk Afrique yu bëri moo ko am Mauritanie bi moo fa commencé am Gambie bi moo fa commencé am bëggoo ko sa dëkk. ñun nous sommes yow yow la Mauritanie. nous ne sommes pas la Mauritanie. Euh, est-ce que nous sommes la France. nous ne sommes pas la est-ce nous sommes la France. nous sommes le Gabon. est que nous sommes la France nous fi. c'est ça non loolu nga bëgg wax nous sommes le dépotoir de l'Afrique pourquoi yow soo waree dem Europe ngay respecté maanaam nga war a am visa soo fa nar a yàgg nga nar am titre de lu tax bëggaloo ko sa dëkk pourquoi et au nom de quoi on doit ouvrir le Sénégal de sorte que étranger bu ñëw mën a liggéey fii ba pare nag jël liggéey sénégalais yi pourquoi parce que moom mën a dafa néew pourquoi da ngay fay sénégalais 100 000 francs ci benn bërëbu liggéeykaay beneen ku yow en tant que sénégalais lan moo la war a yëngal yow mooy que le sénégalais réussit au Sénégal wala l'étranger. xam nga le problème des gens qui tiennent ce type de. xam nga xam nga discours bi nga tënk xam nga c'est quoi xam nga Sénégal nit ñu toog am seen daraja bopp am seen salaire am seen mën-mën du ñu sóoraale ñu ko mënul.